mbokk yi gannaaw ba nu sante sunu boroom julli ci yonentam ba subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal di dénk sunu bopp di dénkaat sunu bopp nu gën a tegu ci yoonu digal suñu borom te moytu ay tere di dénk suñu bopp ñun ñëpp ñu maase xam ne adduna ji ñu nekk ni ko waroom xam-xam yi gisee mooy këru ku amagul kër bokk yi ku amagul kër kër gëm dëkk mën nañ ko ko abal walla ñu luyee ko ko yaar yooyu lu ci nit mën a dëkk ci ak kër lu mu defar defar dëkkuwaayam ba lu mu ko fonk fonk bis day ñëw boroom kër ga ne ko soxla naa mu génn ak yam mën a génne dem yam fa xasoon a def am na ci yooyu mënu koo yóbbaale da ko fay bàyyi ñu di ko ko xoole yàlla na doon lu rafet waaye adduna it alal la joo xam ne ku amagul alal mooy sa alal mbokk yi koo xam ne amagul daamar ju moomal boppam wala fas wu moomal boppam da di ci liggéey saa bu borom fas wa soxlaa ne ko indi mu joxaat ko ni tocc yàlla nañu ci yàlla musal borom xel mu gàtt rek mooy dajaleel adduna kese wala mu di ca bëgg bay kekku wala mu xiir ca lool ba bu ñu ko tuddee yàlla mu faxas ay noppam. waaye ku ca bëgg a am bànneexit xamut li xew bànneexub àdduna tuuti la li fi nit kiy nekk lam ciy yëg bànneex la muy la mu fiy nekk la muy gàtt gàtt la mu fiy yëg bànneex ko gën a néew képp koo xam ne daa bëgg xéewal goo xam ne day yaatu lool waaye yor àtteeb dax dax ku ko xamul mën naa xam bër bër lu mu rafet rafet la ko ëmb soo ko tegee ci naaj wi léegi tey nga ñàkk ko waaye koo xam ne daa bëgg dund koo xam ne daa am fu muy yam tàmbali fi yam fii na jàpp àdduna waaye koo xam ne daa bëgg bànneex boo xam ne lu bànneex ba yàgg yàgg yàgg yàgg mu di ko yëg ak nu mu ko mën a yëge am na fu muy jeexe na def àdduna waayam loolu baa xam la waaye mbokk yi nag yooyu yëpp ku wut gisu dara lu dul àdduna kese tooñ na boppam te it weddi na la ko suñu borom digaloon moo ne woon yéen nit ñi maa ngi leen di xamal ne yàlla lu mu digee dëgg la na ngeen fexe ba bu leen àdduna wor mukk na ngeen fexe ba bu leen seytaane wor yaa ayuha nnaasu inna wa'da allahi xaqun fala taxurannakum alxayaatu dunya wala yaxurannakum billahi alxaruur dal ne àdduna ji ngeen nekk alxayaatu dunya sax la tudd dund koo xam ne ak jeexam lu jege la mataa daa mel ne matt daa mel ne sarsep mboob bu oto bu mag wàcce wala oto yu mag wàcce ko foo tool di ko siin waaye as ndoomu sa almet rek mën na koo taal ci diggante bu gàtt xef ak xippi daanaka rek ndax boo ko taaloon tey bala ngaa tàng boo tàngal attaaya bala ngaa naanub lëwër rek mu jeex tàkk noonu la ko yàlla jàngale ci alxuraan noonu la ñu ko waxee daan ne àllaaxira nag mooy kër gi nga xam ne ku fa dugg dootoo génn kër gi ma wax ne kër gu amagul kër la àllaaxira fa la daarul xaraar nag yàlla na doon fa ñu gënal waaye am na feneen it moo tax yàlla ne képp koo xam ne dafa jàppe àdduna alal joo xam ne moomu moomu ko dañ ko cay liggéeyloo kepp na ko sàmm ba bu ko joxee boroom boroom sant ko mu sant boroom waaye ku ko jàppe kër goo xam ne dafa luye wala dañ ko ko abalit na ko sàmm ba buy tàggoog boroom it xolam ka ko joxoon sedd ab xolam dal ci moom ëllëg si biir bu amagul kër te génn kër googu saa buy am buy joxe kër mën ko ko joxaat ci misaal sëñ bu mag bi kenn ci bokkam yi ko jege maam Cheikh Anta jëndoon na kër ñii ne xombal la moo gën a siiw ñenn ñi ne Tëngéej xombat la siiw na muy wan sëñ bi ne ko daa bëgg mu dem fa ñaanal ko fa sëñ bi ne ko nga ne loo jënd mu ne ko kër mu ne ko cheikh kër ba la ko kenn am da nga gental yetti kër nit ki balaa ñëw àdduna de ci biirum ndeyam la dëkkoon ba mu dëkk ci biirum ndeyam ku ne ko am na foo xam ne fii wote yi dañu fay daw avion yi di naaw ci bi ci dana ko jaaxal lool ci yaatuwaay mu ne fi cëpp gental foofa te du fa delluwaat mukk kenn mu sa juddu delluwaat ci biirum ndeyam sañ ci àdduna mu yaatu lool ñu di ko wax àllaaxira nu mu yaatoo jannatun arduha as-samawatu wal ard mën na koo jaaxal na mu ko jaaxale woon bañ ko ëmbee ba ñu ko laajee Seydina Omar lu gën yaatu asamaan ak suuf fu muy nekk dana leen bu guddee fu bëccëg di nekk bu bëccëgee fu guddi du nekk nee na bu sañcee àdduna ba faatu dugg bar sax génn na àdduna te du del si wat mukk ku ñàkk ku mën a ñàkk lu ñaan ya bari bari moom lañ ko dañ ko ñaan kay mu dajee yërmande yàlla waaye ñaan lu ñaan del mu del si waat ndax xam nañ ne mënut a amaat nee na ko nag bu tuxoo bar sax ca lañ ko soge woon këram muy aljanna yàlla nañu ci yàlla du yàlla nañu ko yàlla may bu def safaan it mën na faa yàgg lool yàlla nañu ci yàlla musal innama hadihi alxayaatu dunia mataa wa inna alaxirata hiya daaru alqaraar man amila sayiatan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب mooy ku fi nekk nekk fi lim fi war a nekk xam ne kër guñ ko luyee la walla guñ ko aal mu sàmm ngoram sàmm la ko war ca kër ga su ëllëgee suy génn it fa muy dugg mën na gën foofa ndax kooka mën naa am gën kanu kay dugg fi te du gaaw génn man amila sayyi'atan falaa yujzaa illaa mislahaa mooy dañ naan ku def ab safaan yàlla fay ko lu tol noonu déedéet yàlla du fayantu ab safaan waaye daf ko ko fay tegal amul lu mu ko ca tegal da ko koy dencal koo xam ne nag lim fi waroon a nekk la fi nekke moo xam góor la wala jigéen la te yàlla tax wa huwa mu'minun te yàlla tax fa ulaika yadxuluna aljannata yurzaquuna fiha bi gayri xisaab loolu nag li ko firndeel mooy ñàkk solo àdduna bari na làmp boo xam ne ma ngay tàkk lu mel ne sondeel walla sax lu ko niru ñu di ko niitoo as ngelaw su tuuti mën na ko fay ndax gone gu ndaw mën na ko ne ëf mu fay kon nit lu mu fi am mën na koo ñàkk lu fi nit am rek mën na koo ñàkk waaye bari na koo xam ne it day na ci xéewal lool ñu koy wax kuy gunaanaat benn bis bët set rek mu ñàkk ko waaye bari na ko yor nguur ba tàyyi it ak pal rek laa bëgg a wax ak gu mën a doon xëy xëy ñàkk ko benn ñu nangu ko ci ay loxoom ay yoxoom walla mu wéradi mën a tut wala ab ba jeex mu ñàkk ko wéer nekkaat ci koñ bi gis nañ ko ba tey waaye am na kook it jàmm ji mu nekke lay topp jàmm li ñu ko jàppee ñu bari mooy denc na lu bari ci alal yor na ay daamar yor na ay kër yu wuute yu bari ci barab yu wuute amu ci fenn fu dépasse ba di yées benn bis ba ko jiitu ku ko séen da nga koy ñee te moom saa bu wéetee moom kenn dëkk mu lay dëkk lii nii lii nii lii nii rek di ci xalaat loo xam ne du ko mën a wax kenn waaye dana ko xam nag yàlla xam ko moom la alxuraan di wax ne ñii nga gis ñuy wëndeelu ci réew yi fu leen neex dem te ñu bari ñu ngi ne siiba dem mu tëleen ticc moom fu ko neexee dem di dem ak dikk di ëndale lu bari nee na bu mu leen yéem mataamun xalil nam ko doon wute nag yàlla na rafet rek moo tax lu fi waay ñàkk te fekk amoon na ko na ko muñ lu waay doon wut am ko it na ko sant yàlla waaye bu mu ko puukare woo bu mu ko def mbégére ndax sëñ bu mag bi newoon na ci làmmiñu si yóbbu laxat moo ko nettali nee na yàlla lu mu la jox ci xaritam la ko nangoo te bu la ko joxee ba nga téye ko ma ngay seet bu ko jëlee ci say yoxo fu mu koy fu mu koy jot ci ay yoxoom moo tax suñu boroom wax ci xadis qudsi ne kuy bay tey ngaa ji ci man ku bëgg a saxle jiyal ci man kuy yaxantu bëgg mu tonowu yaxantul ak man koo xam ne danga bëgg looy dawal mu fekk la fa looy fret mu fekk la fa tey ngaa fret jëme ci man soo ñëwee danga doo fekk mu yàqu day gën a sakkan kuy xool koy jëflanteel te du la war mukk ñëw leen ci man moom yàlla may wax ndax nee na yii di yent yëf kuy séq séq ko ak moom ma ngi la fa tegal loo xam ne bët musu koo teg bët ba bët musu koo gis nopp musu koo dégg xel musu koo xalaat ndax lam yor du jeex te sañ-sañ bi mu ko yoree du tàggoog moom mukk zaari'uuni wa taajiruuni aslifuuni wa aamiluuni fa inna riixakum indi maa laa aynun ra'at wala udnun sami'at wala xatara ala qalbi basharin xat wala tanfadu wala tanfadu xasaanati wala yanqusu mulki mooy fi muy waxee ci alxuraan ne ñi ko déggal dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne bu ñu ne yàlla nee na rek seen dund rëcc innama yuminu bi ayatina alladina ida dukkiru biha xarru sujjadan suñ defee lañ leen war lépp ba noppi ci ibaadaat su nit ñi tëddee ñoom ñu ne fojjat seenub wet miinante wut ak seenub laaw wetuk ndeyjoor di wetuk càmmoñ tatajaafa junubuhum an al madaaji' daan na nag lañ cay jëlee bu ëllëgee xel musta xalaat ne suñ defee lu mel ni lañ daan def danañ am lu fale lañ am falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ayun jazaan bimaa kaanu yaamaluun yàlla na nu yàlla xéewale ba ñu mën a dégg njàngale moomu mu mel ne fan yu néew ci ginnaaw rek am na ñu doon wër réew mi di wala bokk ñenn ñu nekk fañ dëkk di wanu naan maa ngi nii maa man nàngam maa man nàngam maa xam nàngam waay waay bokk yi ku ci jot lam doon wut yàlla jox ko ko jaarale ko ci yoxoy nit ñi nu wét ci bu ruq tiit jooy xam ne yaakaar yu bari aju na ci moom xam ne dañ doon tànn ñu baree bëggoon ñu tànn ko moom mu xam ne yan nañ ko lu diis waaye kuñ yan loo nar a yóbbu fañ la ko yóbbuloo ak payam warut a nekk ak cantam warut a nekk tëgg ak fecc tiitaay ngi la war a doon waaye koo xam ne da ko yoroon nit ñàkk ko na xam ne yàllaa ko joxoon jaarale ko ci yoxoy nit ñi rikk bu mu saalik bu mu ñëkki bu mu joxoñ kenn ndax kat am na bis ñu ne ko yow lañ jox waa këram bég mu bég kak ko joxoon moo ko xañaat nu négaat yàlla te xaar te bañ a xaddi te ñi nga xam ne ñoo joxe am nañ sañ-sañ bu baax a baax a baax di xool nag liñ jox ak kiñ ko jox ni mu ko yore am nañ sañ-sañ bu baax a baax a baax a baax ndax koo xam ne da nga doon dénkaay ne mu ñëw ne dénk ma xam nga kuy dénkaay daa ne diw am ma dénk la waaye moo ñëw ne dénk leen ma ku ñëw ne dénk leen ma nag bañ dénk ko bokk yi am na sas la mu war a doon njukkal nit ñi mooy wëraat fu mu demoon mu demaat fa ne leen jërë ngeen jëf ñaareel ba it ku ko soxla mën ko gis ak fañ ko soxlaa ak waxtu ñu ko mën a soxlaa ndax am na ko fi ñu nekkoon njiitum réew daana wax ne man maay jaamukatu seen soxla yi xaw ma wér na wala wérut waaye loola wér na moom wax ji moom lu wér la xaw ma def na xaw ma def ko waaye lu wér a wér la wér a wér koo xam ne dañ laa yan moom fexeel ba bu ñu lay yenn mu bañ a pàllax bañ a tuur nga bañ a wàcc ci yoon wi bañ koo danga xamtalu te limb ko ba nga xam ne soo koy wàccee mu toll na mu tolloo te bu ëllëgee bu ñuy tànn ñu seet ñii tànn ñoom doon bokk yi tànn fi gën a jafe yàlla rek moo ko sañ moom mi xam ñëpp wa rabbuka yaxluqu ma yashaa'u wa yaxtaar ku dul yàlla nag mën ngaa tànn juum ca waaye rek niñ tànn nañ bàyyi xel bu baax baat bi ma fi doon junj keroog te ay année 80 bi muy tàmm 70 jëm 80 su ab jongante masaan am ci koñ ñee jongante ji dañuy am kersa lool ci lu ñu waxee waa koñ ba suñ suñu amut ndam lu may wax waa koñ ba ak waa kër gi nag daa mat di bàyyi xel lool ci as gor donte ñu bari bàyyiwuñ ko xel bu ñu xasee ba am gëmm nañ tëx nañ lu nañ dutuñ dégg dutuñ gis dutuñ wax ak kenn dañuy am ñu yees ñu wax ak ñoom di am ñu yees ñu leen di seet si ñoom itam ñuy am ñu ñuy seetee ka waxal yàlla noonu yàlla musal si jox ci jikko yàlla na ci jàmm topp te ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ di ko tuddoo fas yéene dund nu bàyyi xel ne fan yi ñuy noyyi dañ ñu ko abal rek nañ ko jàppee kër guñ moomul wërsëg si ñu amaku si néew nañ ko jàppee alal juñ jox di ñu ci liggéeyloo moo xam muy daamar wala boutique rikk bu ñu demee bay réglé inventaire bu mu yées lañ ñu joxoon bu ko dara toppatit bu mu yées na mel na mel yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'il muslimina